أنت ربي وكنت لي بدادي Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yooyu amul fenn ay carreau faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plinthe wala ay baguette ba ci ay carreau parquet lépp am na ci biir Taïf carreau ay carreau espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf carreau li ci gën a neex mooy Taïf carreau defal client yi promo boo jëndee carreau yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf carreau nee maanaa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy siège anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may moo xam kër gi nekk niveau niveau de wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seeni sànca fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo ñooy number one ci wàllu jaay karo. ngi noonu Jackson a loo filmé baaxul sama cadreur bu mag bi di nuyu waa Gaston di nuyu waa Gaston di waxtaan nañ ci kër yi de Xaadim Njaay nee na Pikin kese Bakary Sakho nee na Birama mooy booy bi soxor bi Bakary Sakho ngi lay lan dañu ànd ak bi ngeen di laal kër yi day tax ñuy di sawar nee na dugal kër yi nga xamante ne abonné ko leen si Wassare Lamb si lutte motivation si Gaston taw leen gaaw ngeen abonné di ndax ñoom ñoo leen di jox image yu leer yi ñoom ñoo leen di jox ñi ngeen gën a bëgg si làmb kon nag daw leen gaaw waaw gars dañoo war a toog dañoo war a toog dañoo wara a nak dañoo a ngeen war a toog toog saako Bakary Sakho Bakary Sakho xanaa bleu zone bi mooy drapeau Guédiawaye bleu zone bi mooy drapeau Guédiawaye war na kontaan. xoolal Jackson yow kii gàllaati Jackson a ngi tëb ma ngay tëb tëb wóop wóop wóop ma ngay door ay gos droite nee na leen jóg leen waay. eh xëy samp na drapeau ba nee bi moom la c'est dë dë ngi noonu nga Jackson yow xale bi yaramam daa tàng de Aliou baba nga ñaanal. waaye ñi ka topp ñoo bari dina war a toog man daal ëppoon presse li tax sawaratuma ci ah ku nekk day bëgg a ah waaw waaw ah tarara tarara ki ki waaw waaw loolu fees na fees na ak sëntuwaa loolu fees na loolu bëri na loolu bëri na loolu ñaari kilo liibar la kii kii lim fecc ñaari kilo liibar la ak sëñ Touba bëri na bëri na. saan naa la booy waalo gi noonu yor mbuusu ndoxam kookoy booy waalo yor mbuusu ndox yi ndeysaan la vainqueur de Tekk Jël le vainqueur ak teq jëla gi noonu moom booy waalo. Sall wóorul. wóorul. ñu am ay sëfër super ay sëfër super. ñan ñoo sëfër super yi. lii di dem di sëfër da bàyyi na si bi fële. mbokk moo daan dëgg soo ko fër. mi xool ci ban état la nekk ak moo daan. Eh, moo daan moo daan la ma ko ñëw naar. waaw. ndax Modou Anta faaw ma gis ko tey sans frontière xam nga ne faaw ma gis ko lu tax taaliba Serigne Saliou bu mag borom juróom borom jàppandal waaw borom loogaak borom njowaan kasaroon na a xam soxla julli kon faaw ma gis ko boo ko sa aajo faju Serigne Saliou ma Modou Anta ngi ni waaw booy woote orange looy jiital. 77. booy woote Digo. 76. Expresso. 70. moom nag indicatif am boo koy woo. Ah. mooy Serigne Saliou. borom Diouf borom Ndiapandal borom Ndongaat. waaw borom Ndiowaan Kasaroon xëy nga. moom ne woon jox ma ndaw ñi ma def ca ñoom la ne ca mag ñi. moo moo tax mu dem jàngi xam-xam. moo daan ko waaw. waaye Sousane bi loolu waalo loolu waalo. loolu waalo waaw bu gën a gis nga nekkul daal di faal. ndeysaan. Dugar Pape Thiam. Dugar. ak waa kër Talfa de waa kër waa kër waa kër Niang Ballo daa mel ni gis naa leen fi de ndax doom day Niang Ballo ne bu at ay béykat waaw ak Giro Seras waaw Géejawaay ñëpp a génn combat bi ci boppam moo leen ñor ñoom waa Géejawaay ma ngay wax ak Jackson laa ilaha illallah xaar mu ñëw ma laaj ko loo ko wax lamba ngi noonu oho ndeysaan ma nga noonu nee na mooy yoon nee na mooy làmb loo ko wax. ah góorgóorlu xoolal li la topp. waaw parce que moo yoon. Mhm. nekk na ndaw di rooti. dañ kaa war a yeb. ndeysaan mais am na loo xamante ni bu si xoolee. Mhm. day nekk gaynde. day nekk gaynde mais mel ni tey deretu géej waaye dafa yëngu ci yow. non dama yow xoolal booy ni may yoo. waaw tey ba ma ñëwee ba nga ñëwee ni xale yi jógee yu tàcc. waaw dawal ka sareet sax dañ sama xol tooy. yàlla yàlla dooleel. waaw. Uh-huh. macha allah waaye kii mbay. dina uh-huh. liggéey rek ngay uh-huh. gën a yombal. parce waa kër quoi. waaw naar. naar ku defarul da ngaa yàqu. mais kii ku ne xam ne dama dama kaa bëgg. billaahi parce que booy a fay. moo tax boo ko da may laal. kii la waaye bi ngi nag fépp laa laajee loo wax gars yi duñ ko gëm. duñ la déglu. duggee Fass nañ xool ba xam. nañ xool ba xam. mais mais combat bi da cee am lu ci xew. parce que Boy Niang dafa duggoon kër Double Less daan mag daan raq Jackson mi daa dugg kër ñoom Lac Rose daan fa ki nga xamante ne mooy euh, Pam Ndoy di raq ji tey bu ma dajee mag. Jackson dafa duggoon kër Lac Rose daan raqul Lac Rose muy Pam Ndoy tey moo duggaat dajeeg mag ji. ñëw école Balla Gaye jël fa fils de Balla vacciné ak moom. waaw war a moom it